الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جسان فيدوبي كوشي تي في جسان فيدوبي الحمد السلام عليكم موكي شاب باي فال نانا الحمد لله نان بوكو وخنا الحمد لله واي موم مون تك نه السلام عليكم ورحمة الله ما ngi mboolem suñuy sang si fi jógee ko dalee ko ci Cheikh Abdou Wilane Cheikh Ahmada Tidiane Sayda Mariama Baram Sayda Maxtaar mboolem ñi nga xam ne mënuñuy tudd seen tur bañ jógee fi ñu ngi leen di ñaanale yalla ci place bi yalla yalla and ak ñom ci jëm yermandem ja yéggal leen nit seeni recc recc fulal leen seeni jëf yu baax tabal leen aljana yalla yalla yàlla des ak ñun ya rabbi ci jëmm yermande jooju may ñu ñu dund fan wu gudd gudd fan yu gudd gudd <coughs> gudd te dundee ko ci lu neex yàlla balaa ñooy dem yàlla nañ yóbbaale yóbbal boo xam ne yàlla dana gërëm yóbbal booba mu ne loola rekk mooy mbidi dëkk biñ nekk nii tey mooy Koosi yàllaa ko tànn ci àdduna bi def fii faydatu ibrahimiya nga xam ne bàyyi ne na mooy faydu bi gën a mag ci faydu yi dëkk bi li ñuy jiitu wax ne fi la njëkk firee alquran fi la doon yaree hit mag ñi bay alaaji ndiir dafa tassé ak bay tudd muqaddam yi juróom yoyu ne man daal dama yem seen jikko bàyyi ne ko ñii maa leen yar te ba ma leen di yar de mën naa yare bàyyi yàlla daf ko xabal la waxoon Musa ak Haaruna bam leen xebalee ci ki gën a ci jamono jooja bam leen xebalee ci ki bon ci àddina ci jamono jooja daf leen wax ne innani maakuma asma waara Baay Ñas ci siro boobu ci la doon yaree mag ñi daf lay yónni nga dem nga dikk mu wax la loo xam ne fekkewut ko moom ci saayer gaa ñi xam ne laaye ji ñu bàyyi di jàngal moom lay dund ak ñun ana lan la bijji muy dem Makka 37. bàyyi ba muy dem Makka 37. mu jaaxal nit ñi lool. mu jaaxal nit ñi lool. daf na leen. su fekkoon ne des naa fa. su naa fa. wàcc naa fi juróom yoo xam ne. li nekk ci man. li nekk ci def naa ko ci kenn ku nekk. ko ci kenn ku mën naa matal mbir mi. mën naa matal mbir mi. ba mu àgg. dara du ci yàqu. Cheikh Ibrahima dafa bind ci Jawaahiru Rasaayil tudd benn dëkk bu tudd Caameen ne yéen waa Caameen mel leen ni waa Koosi mel leen ni waa Tayba Ñangeen mel leen ni waa Tayba Ñaseen ñii fii baay fi nekkoon ak ñoom

yar ba rafet topus topp shariatu li topit aqiqatu tay bañu seen tay bañu mama laaje fa nekkoon lii li limi firi mooy jege safara dafay tax nga tàng dafay lu sedd day tax nga sedd cheikh ibrahima jëye gi ko ñii jege woon Cheikh Ahmed mi noppi wax nañu xisa léegi ñuy dund ak Cheikh Ibrahima Fall ci mujj ak dundam gi <laughs> problème boo wax lum rëy rëy rëy dafay wax ne bàyyi def na ko nii la ko daan waxee ndax am na cët ci bàyyi cët boo xam ne bëgg yàlla ànd bëgg yàlla tax Cheikhna Ahmad Ahmad Tidiane radiyallahu anhu bam demee ba ci mujjug dundam dafa gis ne am na lu manqué ci yarab taalibe yi mu daal di bëgg taalif ruhul adab dundam mayit koko dundam mayit koko Cheikh Ibrahima Niass boobu la njëkk a taalif téere boobu la taalif bam ko taalifee wa mag ñi ne nañ koy jàngal taalibe yi waaye ba mu gisee maam Cheikh Ibrahima Fall la wax moom wax ko nijaayam Abdou Thiam na ina nafsa la amaaratun bi suuy maraahilu nafsi lam njëkk a def mooy lan lam njëkk a def mooy lan mu ne damaa dem ba jël sama bakkan gas ba mu xóot ma suul. jël sama bakkan gas ma suul ko. dem ba mu yàgg. dem ba mu yàgg. ma bakkan bëri na pexe de. ma bakkan bëri na ma génne aar ko. mu ma génne aar ko. sulli ko ba ne ko luqeet. sulli ba rendi. ba tàggale bopp baag doq ga. ba ko ba ne ma lañ. Tamsir Abdou. Baye Tidiane mii la doon wax ak. Baye Tidiane mii la doon wax ak. lépp lu ma bëgg a def mën naa ko def ci yàlla. lépp lu ma bëgg a def. ci yàlla rek yomb na ma mën naa ko def. amatuma nafsul amaaratu bi may kondir. amatuma nafsul amaaratu bi may kondir. nafsul amaaratu bu fa newut. nafsul amaaratu bu fa newut. nafsul lawaamatu amatul place. nafsul lawaamatu amatul place. nafsul lawaamatu mooy ñëw naan waa ji lii ngay def baaxut bul defati lii waxal lii. nafsul lawaama mooy wax naan lii ngay def baaxut hey bul defati lii defal lile. kon bam tàggoo moom maam Cheikh Ibrahima Fall ak ñaari bakkanam yooyu nafsul mulhamatu nafsul raadiyatu nafsul mardiyatu yii moo des ci kanamam ba muy liggéey ba mu yàgg bàyyi ne digaloon naa leen ngeen jàng ruuxul adab digaloon naa leen ne jàng leen ruuxul adab waaye léegi jàng leen Ibra Fall mi li ci rawul adab léppañ ci moom masta xuloo masta xeex lim ñu daan wax ci jotaay bu leen tooñ ku leen tooñ bu leen fayu mbir yi nii la dóorul li ñee wasalaamaaleykum wa Kossy TV am ngeen jaaraama yéen ñi ànd baay yéenay liggéey fay du baay bi ci barxama ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen